projet culturel yu bari yi ñuy def waxoon naa ko ko waxoon naa ko dañuy am ay partenaires au niveau de l' extérieur war ko indi fii ñu indi fi ay ay projet yoo xamante ni day arranger ville ville bi ci wàllu culture mais sax maire pour mu signer la nga déposer projet boobu sax problème la waxoon naa ko ko keroog ci conférence de presse yaa ngi fa woon ma ne ko man li ma lay wax mooy dañuy am ñun ay partenaires parce que ñun compagnie yu yor peut être am na tuuti ay partenaires am coté extérieur ñu war a ñëw fii am ay financement yi ñuy def ci côté formation muy cinématographe muy yëpp ñu am partenaire wallon yi muy bi nga xamante ni moo nekk Bruxelles muy wallon nga xam ni maire wallon yi partenaire bi yow maire laaj ñu la dara financé woo dara maire wallon yi moo koy financé yow lan lañ bëgg mooy maire wallon yi ak yow ngeen signé benn convention yow nga signé maire wallon yi signé mu financé par projet mais ba tey ba sànq lan ma fa waxoon gisaatuma dara tamit bi mu waxee ma ne ko man li may wax doyul xëy na mënu ma ko wax ci conférence de presse li may wax ci kii tuuti mais da nga ne juillet di nga woo comédien boo leen woowee juillet ma wax la ni ma bëgg a wax ñëpp a fa woon ba ma wax. léegi ma fi ne ma mais day day day day recevoir gars yi le 30 juillet acteurs culturels yi am ñu mu woo am ñu mu woowul a ne ma ne ko président ba xam mairie woon na la. mu ni ma déedéet ci guddi ga ma ko est-ce da ngay dem président tew xaw ma ko ma ko président mu tew te fi mu toll la toll foofu la culture géeyawaay toll ñun nous sommes prêts à tout Sall na ñun ay autorité la comme bon dañuy dem dans tous les pays di participer ci ay festival international ñuy dem maire bi ñu jël ñu yëkkat ci kaw dëkk ya ñuy dem man trophée ba ma am Italie maire ko jox ñoo honoré ma ko te ñun amee ay gan yu jógee extérieur sax pour ñu am suñu maire wala pour recevoir suñuy gan sax problème la ça suffit loolu dafa war a doy